yéen a ngi seetaan daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الحضور الكرام إنه لشرف كبير لمعهد كوكي أن يتم اختياره من بين العديد من المراكز في السنغال لاستضافة هذه المناسبة العلمية والثقافية السعيدة كما نتشرف اليوم باستضافة شخصية كبيرة أحد أعلام العلم والدعوة وقام من قامات الفكر والثقافة ألا وهو الأستاذ الكبير الإمام حسن سك الحاضر بين أيدينا اليوم وسيأتي ليتحفنا ويشنف masaami'ana bi ardin muujazin wa muqtadabin an haadha alkitab alladi kon mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñi fi teew ñépp di am mbégte di dalal boroom xam-xam bu mag muy al imam Xasan Seck nga xam ne ñun tànnuñ ko pour mu ñëw fii defal ñu conférence waaye direction di livre ñi ko xam ci compétence am ak ci jaar-jaaram ci bëgg xam-xamam ak nangu ko joxe ñoo ko fi invité mu nekk suñu mbégte ndax moom day kenn ci daara ji bi mu Saalum la fekk baax fa la dalee alquran waaye mu ngi àggale fii ci kokki fi la mokkalee ci année quatre-vingt yi bi mu fi jógee daa jawwali dem gànnaar Mauritanie ci benn université saoudienne bu nekkoon Nouakchott fa la àggale njàngam ba am maîtrise mu nekk nit ku bëgg xam-xam nekk bilingue buy wax langue yu bari bind téere yu bari bari na ay livre yu yuñ biñ bindoon ci français moo ko moo ko traduire en arabe ay téere mu ngi fii ci suñu bibliothèque bi bokk na ci téere bi al intisar li diini nabiyi l ummi abra al xiwaar al masihi al islaami ci taalif la bokk am na bindu professeur Iba Dar yoo xam ne nii euh, def na ko ci làkku arab mu am participation bu mag bu mu def ci euh, yaatal xam-xam surtout ci ñi nga xam ne ñooy jàng arab kon xam naa temps bi dafa xat lool dañu koy bàyyi jox ko lu toll ci ñaar fukki minutes ak juróom mu defal ñu ab tënk bu bu ndaw rek ci téere bi nga xam ne docteur Ahmad Mokhtar Lo bindoon na ko ci dundu suñu Ahmad Saxir bu defee ñi ñaan ñëpp ñu teewlu ñu ñaan élèves yi surtout euh, bu ñu noppee. oustaz imam Hassan bu paree ci kiyoom euh, discours am bi wala ci conférence am bi ñi may ñetti xale wala ñaar ñi joxe seen laaj bu fekkee am na lu ñuy laaj ci lim doon wax ci ci dix minutes incha allah kon ñu ngi jox kàddu gi al imam Hassan mu dikkal ñu ci li nga xam ne préparer na ko ci livre boobu الذي افتتح كتابه المعجز الخالد للدعوة إلى حب القراءة والولوع والكلف بها لكونها مفتاح جميع العلوم والمعارف ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الذي فتح عقول العلماء وهداهم إلى طرق alilmi walmaarifa walmanhaj altajribi bis bu rëy ngi bis buy wax ci mbiru téere bis buy wax ci mbiru lecture rawatina waa daara ñoom ñi nga xam ne seen lecture àgg na fu lecture kenn àggul muy mokkal téere bu toll ni alquran téere bu mel ni alquran samedi bi bi ko faree gannaaw dama doon defal ay làmpe conférence sur les valeurs islamiques dans la quête du savoir et apport universel l'abbé bi bi may présenté mu ne jëmm ji toog il a le Coran en lui ñu ngi ko jëlee kokki mu ne man j'aurais souhaité que ma mën a am la Bible en moi kon waa daara ñoo am loolu keneen ku dul am ko ma dosé waat leen ca conférence ba ndax conférence ba mu jeex teewuma kayit te wan naa leen suñu sëriñ li mu doon wax sànq ne lépp ci alquran la jógee ko ak ay preuve yoo xam ne kenn mënu ci tebbi ndax cité naa Gustave Le Bon tubaab la cité Roger Garaudy tubaab la si cité Brifold tubaab la cité Auguste Segrin Hanke tubaab la ñoom ñoom ñu nangu ne xam-xam yëpp ci alquran la joge ko kon gàcci ngalama waa direction du livre et de la lecture gàcci ngalaama docteur Ibrahima Lo gàcci ngalaama doomam ji toog fii ak mbooleem ñi jàppalanteeg moom bi ñu amee perspicacité am gis-gis journée internationale ñu xam palaasu daara yaakaar naa ne xale yi seen prestation ci arabe seen prestation ci français seen prestation ci anglais doy na wund doy na tegtal doy na jox raison ki nga xam ne mooy docteur ibrahim Lo ak direction du livre et de la lecture rawatina nag xam ne moom la ñu nekk ak symbole bu rëy rëy rëy bi muy jëmmal ci wàllu yu dul jeex dama jàppoon ne professeur bi mooy njëkk yëkkati kàddu sur le contrat social mais le vrai contrat social mu ngi fi le contrat social mu ngi ci livre bi Cheikh Ahmed saxiir loo radiyallahu fi fi ayaamihi alxaalida qissatu xayaatin wa masiratu nisfi qarnin min alata contrat social boobu moom la chercheur Aubryon doon tuddee le contrat social sénégalais muy mooñu woon Sénégal mooñu ci daara ak ñi koy jëmmal bu ñuy wax daara nag d'ailleurs même mu alliful kitaab même baat boobu la jëfandikoo bi muy wax xeeti cëriñ yi amoon cëriñ kokki Louga Ndakaar te mu ngi jógee koo euh, depuis ci révolution des marabouts tub naan nga xam na boo demee professeur euh, Souleymane Bara ci livre la société sénégalaise wax na ci mouvement boobu lu baree baree baree baree bare kon dama ne le contrat social mu ngi nii waaye itam euh, le vrai barab bi koy jëmmal mooy barab bi waaye itam vrai jëmmu yi yàlla defaral boppam génneel boppam ci njubaxte ci sëmamu contrat social boobu di dellu ci daara mooy ki ñu bind téere bi muy suñu sëriñ Cheikh Ahmad Saghir Lo ma ci am mbekti bu rëy ndax wax naa ko docteur ma ne man de li ma leen di wax rek mooy bidaatukum ruddat ilaykum <laughs> seen waa ji daal seen taalibi bi daal seen ndongo bi daal moom la direction du livre et de la lecture ndax fii laa tere alquran 83 maa ngi gis docteur ji mu Ousmane téere bi mu bind ci sëriñ bu màgg bi mu ne 1982 ba 2007 daara ji li fi mokkalee alquran man na vingt mille quatre-vingt-dix personnes vingt mille quatre-vingt-dix personnes yooyu waa ji leen direction de livre indil ci la bokk kon waaye itam ma am sama doom joo xam ne moom laa ko tudde kon lu aju ci exposé téere bi bi ma sëñ Mouhamad loo waxee mbir mi dama ne ko bis boobu day ak barab boobu day gisuma téere bu ci gën a yell téere suñu sëriñ macha allah sunu xarit sunu àndandoor sunu wëlëre docteur Ahmed Muxtaar Lo ndax itam nag man bind naa jàng naa téere yu bari ci dund sunu sëriñ bi waaye ay jagle waaye lu ma jàppee aussi ak générosité eh, gi ma gis ci moom gisuma ko ci yeneen bindkat yi loolu jagle téere bi la téere bi daf ñuy wan ne kokki daf ñuy wan ne Cheikh Ahmed Sakhir Lo nekkul une personne qui est à Paris ex ex moo tax dafa gën a projeté lumière gën a wane lu ñu mën a tuddee les arrière-plans wala lu ñu mën a tuddee les backgrounds boo ko seetloo lu ëpp genn wàllu livre bi ci lu tax daanaka Cheikh Ahmad Sakhir Lo feeñ ci la ko def commencé ko ci famille tudd ci ay maamam ñoo xam ne fonde daara fondé cëriñ fondé école càlla la goo xam ne mën na fukki maam kon kooku bu melee ni jëmm ji ñi bind ci moom téere bi background boobu xalfiya boobu wala arrière plan boobu mu ngi ñuy interpréter le le pourquoi kon loolu la njëkk wax ci téere bi mu joxe ci Eh, lu mat fukki ci ay maamam waaye itam wane seen jaloore waaye itam wane seen liggéey ci alquran ku bëgg a xam rek fukki maam yooyu rek ak seen jaloore yooyu rek jaayanteel ak yàlla jënd téere bi liir ko li ma lay junj yëpp da fekk foofu détail ah, yu yéeme yéeme yéeme yéeme wax na itam Euh, jàngam ni mu bëggee woon xam-xam barab yu bari yamu jaar ak barab bu nekk ay xar baax yam fa feeñal xam nga ndongo luy nekk di jàng sa sëriñ bi lay jàngal ne su faatoo ndongo li laa bëgg jiite ma loolu xar baax la ak ñi mu dajeel daje xaritoo bu dellu ci yàlla dellu ci diine dellu ci alquran ci barabu jàngeekaay yooyu bara ba ci barabu jàngeekaay yoo xam ne jëmmal kóllëre woy juróom góor ak ay xaritoom ak ay àndandooram gu rafet ak ñamu doon àndal moom sëriñ sunu sëriñ bu tedd bii moo ko e, taxa dem ca barab yooya loolu kasaalika naka noon e, ku ci bëgg am luy bégloo sa xol lu lay kontaan loo macha allah na nga fexe jënd téere bi ma yëkkati seen kanam nga nga nga nga liir ko da nga ci am incha allah lu sedd sedd sa xol kazalika naka noon Euh, wax na ci itam sëriñ boobu xam nga tubaab bi balaa mu fi ñëw daf daf fekkoon làkku arab mu am fi doole ñi ci daan bind di ci taalif càll la googu nag sunu sëriñ bii di cheikh ahmad saxiir loo qaddasa allahu ruuxa wa namma irsa ci ñi ko jëmmal ci boppam ci aw jàngam waaye itam ci xam-xam bi nga xam ne moom la jëlee woon ca jàng woo wax ak capacité intellectuelle mu joxe ci ay ci ay taalifam joxe ci ay preuve ci ay bindam mu ñëw analyser taalif yooyu analyser bind yooyu sukkandiku ci gëstukat chercheur professionnel alifan ku mel ni docteur Jim Ousmane Dramé bi ma waxoon sànq waaye kazalika naka noonu téere bi képp ku bëgg a xam nag histoire kokki wala njàmbur loolu lay tuddee générosité tabe ci daraja te xeet la ci objectivité te bi nekk ci téere bi ndax man yeneen téere yi ma daan liir ci Cheikh Ahmad Saxiir qaddasa allahu ruuxa wa namma irsa dañ daan gën a projeter la lumière ci jëmmam gën projet projeter la lumière ci ay jëfam mais ah téere bi li may wax noonu les arrière-plans et les backgrounds dafa projeter lumière ci dëkk bi nga xam ne mooy Koki ci ay boroom xam-xam suñu maam Muxtaar Ndumbe Joob ak njabootam ak ay sëtam ak taalifkat yu màgg a màgg yi nga xam ne génn na ci euh, sëtam yooyu bokk na ci ci bind muqaddimatul kokki nga xam ne mooy lu ñu xam téere bi njëkk ci wàllu grammaire arabe mu def ko ci poème arabe lu war a mat 769 vers te kooku bi muy gaañu amul lu dul ñeent fukki at loolu bu amee ci dëkk bu mel nii mu jeexat ko mu sulli ko mu génne ko mu fësal ko adduna war ci mën a jàngee moom ak ñeneen ñu baree bari ak ñu mel ni moom parce que aucune personne puisque aucune science ne apparaît subitement xam-xam du xëy àgg fenn fi jëmm du xëy àgg fenn fi soo ko gisee rek am na lu ko jiitu woon moom nag mu ñëw creuser ci loolu jiitu woon ko loolu générosité la pour man objectivité pour man la tabe ci daraja pour man euh, bi mu jógee foofu itam ñëw na lu bari ci situation wu kokki buñ ne la barab bi tey université la woon ay euh, na ay année surtout balaa sunu sëriñ Ahmad Saxir di fi ñëw boo xoolaa ndax dangay gis màndarga ya moom mu ne la màndarga yi ak am vestige yi ak am waaye nag dafa am ay guerre ay perturbation ay problème yu fi jaar mu mel ni décombre xam-xam yooyu décombre jihad yooyu dañu xawoon a jaloo fekk mu ngi ci suuf si mu junji lu baree bari ci xew-xew yooyu daana am ci côté contrat social diggante maarabu yi ak population yi depuis mouvement naan bu Nasiru Diin nga xam ne contrat social boobu O'Brien di wax li ñu xam ci histoire foofu la njëkk a juddoo di continuer di wéy marabu yi di am influence yi nit ñi di contribuer ci pacifier leen ak lu nekk cadre unitaire de l'islam au Sénégal am na benn manuel bu mu bind ci wàllu man ci co-auteur la bokk Sénégal unique et pluriel pour un meilleur vivre ensemble loolu li ci marabu yi liggéey ci wàllu contrat social bi nga xam ne moom nga naroon a waxee contrat social boobu moo yóbbee marabu yi nekkoon fii ñi jóg défendre population yi ci ay taxawaay yu baree bari waaye kazalika naka noonu ci wàllu générosité am mu ñëw projet projeté lumière yu rëy a yu ama am doole yu regg ci maam Cheikh Ahmad Saxiir lañ koy wax sax waaye moom Kabir la ko tudde mbay ki nga xam ne tey moom lañ tuddee sunu sëriñ bi mu nekkoon xaritu way juram mu nekkoon boroom xam-xam boo xam ne avant l'âge de vingt ans ci la commencé woon di bind ay téere moo ko orienté nekkoon jaamukatu yàlla mu wax ci ay mayam daan julli bés bu nekk lu ëpp téeméeri ràkka ak ñaar fukk mu wax ci moom lu baree bari loo xam ne man gi mësuma koo jàng ci benn téere rawatina téere buy wax ci sunu sëriñ Cheikh Ahmad Saxir Lo te jàng naa ci moom ay téere yu bari wax na ne traducteur la même traduire naa ci benn thèse de doctorat waaye nag li ma gis fii moom euh, kon su ko defee nag bi mu jógee ko ci background bi parce que background bi aussi boo ko seetloo li ëpp xaaju téere bi ci loolu lay wax kooku générosité la kooku manque d'égoïsme la kooku tabe ci daraja la jërëjëf mu doog ñëw nag ci suñu sëriñ boobu surtout ci côté euh, lu mu tuddee al ibdaa tarbawi téere bi foofu la tarkiis maanaam côté yar ak jàngale li mu ci indi loo xam ne moom rek moo ko indi ak xarañ ba ak sellal ba ak ubbi jàng goo xam ne ñépp ubbi na leen buntu jàng jaayante ceeg yàlla ak ndam yee ko ci yàlla defal ci nit ñi génnee ci école bi depuis démb ak tey ki fi njëkkalee mokkal alxuraan doy na muy sëriñ Sàmbay ak fi mu àgg ci xam-xam joxe ci ñeneen waaye kasaalika na ko noonu mu ñëw ci école boobu lalee ci sellal wax naa la sànq docteur Djibu Ousmane Dramé 1982 ba 2007 20 090 nit ñu mokkal alxuraan man mii ci laa bokk loolu mooy eh, tekki barke ak sellal bi nekkoon ci sunu sëriñ ak ubbeeku ci yar ak ubbeeku ci defar nit mu dem ba feeñ ci école bi tey wax na école bi xëy na la sax yokku na jamono ji muy bind téere bi euh, école boo xam ne war na am 64 salles yoo xam ne benn établissement la moo tax 2016 ñi nangul leen ne bokk na ci école yi gën a am performance waaye bokk ci école yi ñu gën a seetaan waaye yàlla leen seetaanul professeur Iba Der bind na ci lu bari wax na ci lu bari jooy na ci lu bari waaye yàlla seetaanul leen sunu proviseur bi nu am dafa doon ñëw bu wax bu mu ñëwee ne dafa bëgg am ma cent pour cent résultat ma ne ko mën naa nekk mu ne man mu ne ma lan mooy firnde bi ma ne ko kokki réaliser nañu ko te ci amuñu moyen état kon loolu mooy al ibdaa tarbawi ak ubbeekum ubbeeku boobu tey ñu sox ñu soxla ko ci mboolem courant wu jullit ñi kon du al waaye al ibdaa ad daawi kazalika kon xam nga ni téere bu ñu toll la joxee vingt cinq minutes ne na nga ko résime doo xam looy wax doo xam fooy tàmbalee waaye li ci am solo li ay junj la maa leen di woo ci jënd téere bi ci jàng ko ñun xeetu jàng lañ abbe yooyu ma doon defal conférence cité naa fa keroog Gustave Le Bon muy waxee ne la science si dédaigné par les autres, a été estimé très haut par les musulmans. C'est à eux du reste qu'est due cette réflexion très juste. Sont des hommes, ceux qui savent ou ceux qui apprennent, le reste n'est que vermine au bon à rien. xam-xam jullit ñi ñoo ko bëgg lu ëttu la méthode expérimentale ñoo ko érigé parce que alxuraan mentalité expérimentale la lay jox kon eh, am na keneen ku doon wax ci jullit ñi na naka lañ bëggee woon lecture même les classes sociales les plus basses étaient avides de de lecture les ouvriers se contentaient de de nourriture pour acheter des i des livres avec les derniers de leurs sous. Un ouvrier possédait une bibliothèque à laquelle les savants se rendaient avec empressement et enthousiasme loolu moo suñu tradition te xeet boo xam ne iqra kay lañ ko njëkk a wax lu war a mat 750 versets coraniques di wax ci lool noonu lañ war a mel kon tradition boobu maa ngi leen di woo ngeen dekkal ko ngeen dundal ko par la lecture, surtout par la lecture de ce livre. macha allah di leen sant di leen gërëm di jégalu bu baax a baax di taxaw fi wax ne di duuf ci nag yëpp daa xajul ci cin li waaye xam ngeen ne téere bi kenn ko résumer ci vingt cinq minutes macha allah xanaa di taxaw fii rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp assalaamu aleykum wa rahmatullahi ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp mépp mépp ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daara Koki TV la chaîne au service du